suñu xaalis lañ yor sama xaalis sa xaalis suñu xaalis ñun ñëpp parce que alalu Sénégal la dañ koo sàcc rawale ko di ko nëbb est ce ay dégg waaw boo déggee ma ma wax si wàllu justice sax mariage parce que yoon bu amoon yoon yoon bu amoon Sénégal heure ma wax ak yow sàcc yooyu yëpp jàpp nañ leen kon xëy na saa waay bu ñuy mariage si kaso bi ne ñuy mariage waaw nekk ay deux puces est ce ay dégg mais dama ni la te yàlla tax justice ngir yàlla war a suul laa Macky Sall nax fa laay daanelee Macky Sall maa alerté autorité yi. nee nañ daf fiy ñëwaat lëndi xaw ma lan man de duma ma la nëbb état moo ëpp information ëpp renseignement fuuf man renseignement yi ma am état am na ko parce que état moom moo ëpp information ëpp ma renseignement ah te ñun xam nañ lu bëri dama ni la li may wax bu dul dëgg état nag ma ñëw jël si yóbbu ma kaso nañ déglu samay appel yaa ngi dégg sénégalais yu bëri contacté nañ ma ay anciens gendarmes ay anciens hommes de tenue ñoo xam ne mag Sall da leen toroxaloon jaay leen doole. ay ñu ñu dénkoon maanaam jox leen jox leen ay maanaam suñu force de l'ordre ñu jiite ko nekk ay samba booy ñoom ñu jaay leen doole dugal leen si kaso wi ñooñu gars yi na leen traumatiser te maanaam dañoo yàgg xeexal Sénégal ay anciens militaires nekk ay jàmbaar ay champion mën a maîtriser arme xam ni ñuy maîtriser arme ba si sniper bi bi ñuy wax mun nañ toll fu sori yor seen arme di viser à plus de saawaay cent kilomètres laa lay mun nañ natt lu ñuy natt boom yaa ma gën a xam est-ce kon tey see mooy li ma la wax. yaa ngi dégg man ñu bëri contacté nañ ma te ñoom ñëpp daan dama leen di dëfal dama leen di dëfal ne gaan patience man mi di wax a yéen maa leen gën a traumatisé maa leen gën a am lu ma naqadi mais maa ngi patienté waaw parce que état maanaam programme la waaw ak maanaam a état programme la ak tamit maanaam calendrier xam nga waaw état bi ñun am nañ yaakaar que ni maanaam wàllu justice bi dina si jug kon daf leen nànk ngeen téy ñoom ñëpp dama leen di dëfal waaye xam nga ni ñooñu gaay ni ñuy wax ak man di alu bu ñëgé ni Macky Sall ñëw na Sénégal mara day tali lu ne mun na xew kon état bi jëlé responsabilité man Macky Sall bugguma ñu faat ko dama bëgg gaay ni ni mu daan def sénégalais comme man ni ma def ñu def ko ko ñomal ko kasso am fi dañ ko naroon tej muy joy di dem si sëriñ di daw laaxu ah foog nax ñu ñamal ko kasso bu ko defee dina xam la moy toroxal doomu adama 2018 defuma dara décembre ñu jël ma jël ci ma fii sama galé fajar ñëw yéem a gaamal la sum waay kole ma ay motif ay association malfaiteur chef de gang laa damay sàccaloo ay booy te ñoom ñooy chef de gang yi est ay dégg kole ma motif parce que rek defoon naa Sall Macky dégage il m'a contre Sénégal Macky mooy unku bi def samay interview ne Macky saal du fi am deuxième mandat est ay dégg ñu jël ma teel ma jàpp décembre 2018 yóbbu ma kaso 2019 après élection yi laa génn yaa ngi dégg jamono yee passé seen lobby bi association malfaiteur bi laqatu nañ si benn góor jigéen bu tekkiwul dara jaay ma doole en an onze mois sursis un mois ferme sama sursis bi mu jeexee yàggul sama sursis bi mu jeexee fekk na Diomaye nekk président yaa ngi dégg waaw te bi ma génnee ñëpp gars yi ma da ma sonal ay non sursis nga nekk xam nga di ma teg xel di sóob teewul ni man si laa gënoon jàpp si combat bi Sonko bi ngay jàpp ñu yoon fii si mbedd bi di ko dund di xeex. ñëpp bàyyi nañ xeex ñun yoo fii bàyyiwuñu maa yoon secteur yoof yi fii yoo fii ñun bàyyiwuñu te xam nga ni yoof famille Compaoré moo fi nekk famille Compaoré boobu saa dañ doon fay booy ah pour booy di cëppale xeexkat yi ci booy yu bëri jàppoon nañ leen fii est-ce que dégg te teewul ni ñun bàyyiwuñu yaa ngi dégg Sonko bi mu grévé de la faim ba bàyyi fekk booy gars yi doon ma topp ay malfaiteur doomu Macky Sall Amadou Sall koppul koo mënoo ko jëw yi nga doon def booy yi nga doon yónni ñoom ñoo moom ñoom ñoo ma doon contacter quoi di ma nandal voilà pour wala maanaam doole dooley yàlla booy bi xoola fay na ay booy booy Amadou Sall surtout jamono dof ndey bi muy génn di napp askan bi ma génn dal seen kaw ñoom ñëpp waaw ne ko moom moo xaajale jeunes yi si koñ yi booy Amadou Sall ma dal si kawam waxoo dëgg mu yónni ay Samba booy dañoo dem benn jamono ñu waxante ko ñoom ñëpp. ñu ne booy bi waa Temax la yor foo leen ko gis mbëq leen est-ce que ay dégg ñu naroon ma rey si tali bi ma jaay sama Temax jël sa jël xaalis bi produire si sound way si Ousmane songoo est-ce ay dégg def ko te yàlla rek a tax est-ce ay dégg waa wutuma si tous yàlla xam na lu si xol yi est-ce ay dégg tey si tey mooy li ma la wax Sonko bi mu gréwee de la fin ba bàyyi ba askan bi soulagé produiral sound suñu président mooy Ousmane songoo wan leen ni saa waay yéen Samba Boy ñun du ñu mës a bàyyi mu sedd Sonko di nga ko mus a fàtte bëgg ngeen ñu fàtte ko di ko mus a fàtte jamais de la vie est-ce que ay dégg non Sonko yàlla def na mai 2023 avant ñu koy jàpp waaw maa moom gisante nañ waaw Sonko sama wóolëre la benn yoon kese nañ mës a gisante mais mooy li ma mooy la. montre yu baax yi ñoo bokk heure qui se ressemble s'assemble benn yoon bi ñu gisantee noonu mel na ni miinante nañ ay at est-ce ay dégg waa loolu yàlla moo koy def yaa ngi dégg Sonko sama nit la waaw tey say moom li mu defal Sénégal ñun amuñu fayam comprendre na waaw mais dama ni la ñun ñoo doon def ñun man lu tax ma def saan Ousmane Sonko dama ni la dama bëggoon bëggoon xamal gars yi ne xoolal seen i pexe parce que xam dañoo génnee ay milliards teg Sonko ba pare di def ay lavage cerveau di si dem en ndax fu ne ñu ñu dem fa di def seen yu bon ne par force di ngeen fàtte Sonko di ngeen ko bàyyi suñuy boo yu bëri maintenant gaan comme démb si man boo yu bëri ay centaines et des centaines de jeunes di jël gaal yi di dem est-ce que dégg jeunes yi découragé looloo taxoon nax ma bëggoon motiver maanaam sénégalais yi que ni Sonko incha allah mooy suñu président. te limu def histoire politique gu Sénégal ak aduna bi musul am comprendre wa suñu rôle lañ doon jouer en tant que porteur de voix comprendre wa motax na té ala tax ñun si dëgg nañu and quoi man numa la nëbëdee man si dëgg la and ak kii que ce soit bo dëggo di dëggal di jubal di léral ñu and bu ñuy andé nga def erreur mo wax la dëgg bo d'accordé dëgg bi waré fa ñu kon ne wa bu ñuy and ngay bëgg dégg ay yama neex kase wa sa ba sa bët wéx na ay eh, jamais de la vie duma ci si ak kenn.

nga xamante nii taba euh, famille yu bëri tabaski wuñu ñu si bëri si naqar nañ tabaski tamxaritu daaw comme démb si man famille yu bëri tamxarituñu lekk ñu cere taluñu ko te ñu si bëri si naqar nañ nañ tamxaritee yaa ngi dégg kon pabaale ñaa bu fi ñëwoon tabaski daaw yi xewoon yëpp tabaski ren mu ñëw def fi loo xamante ni nii haute trahison la man lool ma répété ko encore te yàlla nañu àtteex moom parce que feetu islam nga ñëw jël kuy porter plainte imam porter plainte oustaz sol drapeau jigéen jaay doole jeunes yuy dund dëgg di dund laa la illallaah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla nañu àtteex yow Papa Alé Niang waaw parce que yow tooñoo ñu de dëgg nga tooñ ax éthique nga tooñ ak morale ak déontologie yaa ngi dégg ñun fàttewuñu dara segal yaa fi ba léegi ku ko xamul dundoo ko saawaay doo ko xam mais boo ko fekkee nii saawaay sur le terrain ñu fëgg bal jeune mu wàcc ah nga xool noo koy rawalee jàpp ko pour yóbbu ko ah yow tey si tey loolu bu la deful segal sax doo nit doo gor kon justice dina am si mim réew incha allah man am naa si yaakaar xam xamalu ma la te nañ si gaaw nax ngir yàlla rasulullah malfaiteur yëpp na nga leen jàpp yóbbu leen si kaso yi waaw waaw bu ñu jàppee bu ñu jàppee malfaiteur yëpp ah bàyyi kenn sax duñu si ànd dañuy dénoncer ñëpp nañ war a jàpp waruñu bàyyi kenn. waaw mooy li ma la wax moo tax ñu ne la xoola loolu yëpp ay détails la xam duñ lu tax mu nekk détail justice bi incha allah rabi justice bu baax bi wow kong bi original bu baax bi bu ñëwee ñoom ñëpp na nga leen waat incha allah parce que dossier boobu moo gën a ndaw ñoom seeni i dossiers dossiers yi ñu fi def ah état yor na ko xam na ko bu ñu demee ba ñun lanceur d' alerte yi ñu koy yor di ko xam kon def leen nànk rek ñooñu saawaay gis nga dossier boobu ah moo gën a ñàkk faada si seen i dossiers voilà bu justice amee si même réew ñun daañu génnee dossiers yi jox ko autorité compétente yi. yaa yaa ngi dégg waaw su su boobaa dossier bu ñu joxee dinañ leen woo yéen presse bi ngeen ñëw ñu tase muy tribunal ñu wax ne tey joxe nañ dossier wu diw dossier bi neex neex nii la demee xamal ko askan bi incha allah rabbi en tant que lanceur d'alerte suñu rôle nañ ko ne di ko jouer te présent ñu ngi lay gërëm tamit di la sant si lanceur d'alerte yi nga ne leen di protéger waaw parce que loolu bu amul woon xëy ba léegi nii ba heure bii nii saa waay xoola yaa ma gën a xam ñu kon ne di ñu noot suñu réew te suñu réew tooñ nañu ba pare ndax bien bienfaiteur man police xam na ma gendarmerie xam na ma koo xam ni gaan yow gox yi ngay dëkk ay banditisme ay délai ay ay affaire de délinquant délinquant juvénile ah da siy sax jàppale gaan man la sum waay danga ah, da siy jàppale gaan takk der yi ah yow booy jarul sax ma fii nekk di lim section recherche li may wax bu dul dëgg nag ma ñëw jël si yaa ngi dégg dig noonu xam nag ma xam nag ma baax bi may xam askan mi sax xamagu ma est ay deug kon tay si tay man suma nekké bienfaiteur ay samba boy dima jaay doole dima ma kasso kaso deug sama rew togn ma sama justice su réew tooñ ma kon te yàlla tax ku ma am nday ku ma amul nday dafa wara dag ci si mim rew waaw loolu mom gaan ñing kay ndakarlu te ba léegi mi ñuy traumatiser ñu ci si am yaakar nak di leen deglu di leen xaar déclaration politique générale bi ñing kay xaar te ñing ci xaar surtout nak à la base walu justice bi ha ah. yes ah, incha allah waaw Wow, mas marchand ambulant yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bégee di leen jox seen wàccuwaay leen wax ni ñun yéen nañ àndal si askanu Sénégal ngeen bokku waaw nekkoo leen ay jeune yuy dem di dunguru ay politiciens politiciens xaj yu dee yu sàcc alalu askan wi signé fi ay contrat pêche illégalement injustement lu amul si benn réew Senegal, nekk scandale yaay ngi dégg xam ne heure bii seen place kaso la woon xam marchand ambulant yi leen di dunguru ñooñu ba ñooñu di leen jox ay postu wayadi ay postu ñàkk faada naan da leen di génnee di leen xeexloo si medd yi naan da leen di génnee di leen di leen yàqaloo ay bagage su jàmbur ah te du postu yooyu duñ ko mus a jox seeni doom wala seeni njaboot Sénégal jot nañu yeewu yeewu leen nekk nit marchand ambulant yi on est très fier de vous ci askan wi ngeen bokk si ghetto bi ngeen dëkk ñuy dëkk si région yi am jom bëgg jàppale seen i waajur ak seen i njaboot ñëw sàccuñu yaa ngi dégg jëluñu gaal yi dem jël seen wéccit nañ def di taaba taaba waaw ñooñu ñu ngi leen war a jàppale taxawu man d'accord naa ok ñu ngi si medd bi si kaw tali bi fo du dëgg te du yoon mais yow loo xamante ni du dëgg te du yoon boo koy xeex wala nga bëgg ko dindi mais da nga koy defax dëgg ak yoon mairie mooy état ci gox mairie buy liggéey di déguerpir avant tout dafa war a joxe sommation mais

yéen askan wi opinion bi yéen ay seede boobu ba léegi jugee ñu fi le douze nax bu ñu fi jugewul ñun dinañ fi ñëw wax policiers yi te dinañ leen déguerpir mais loolu d'accord naa mais ana police ana gendarmerie wala boog mais nga ñëw àndoo wax police àndoo wax dara ah dem yónni ñoo xamante nii say nit nañ parce que bu ñu nekkul woon sa ay nit gaamal la su moyen bu dul woon gaan parce que yi ñoom ni ñuy joobee ñu ñëpp xam nañ leen waaw seen i nit ak ñu leen di jàppale nañ nañuy jox ay poste seen i mairie waaw ñu leen jàppalewul nii gars wala amuñu yaakaar si yow di nga la jox poste